Morolan mu ngi féete ci département bu Tivaouane région de Thiès mu ngi lëkkale fukki de dëkkaan ak juróom-ñett fukki junni ak juróom-ñetti doomi aadama di fa yeewoo Yves Lamine Ciss mooy ki mujjee nekk président conseil rural ak ki njëkk nekk maire bu Morolan bi ñu taxawale ci atum 2014 acte 3 de la décentralisation ba ñu ko falee ba léegi moom ak conseil municipal bi mësuñoo jóg ci di xalaat ak a jëf luy jëmale Morolan ca kanam maire Yves Lamine Ciss dafa gëm ne benn réew mënul jëm kanam fekk jiitalu njàng mu amul xaaj ak seen ci doxalinam ginnaaw école ji mu tabax mbaa mu yokk fa ay salle de classe defar na ay mur de clôture ak ay wanak de dañoo bëgg ci commune Morlan mu am zéro enfant dans la rue doomu Morlan nekk ci mbedd bi di taxawlu dañoo bëgg doomu Morlan yi yëpp nekk ci jàng maanaam boo amee entrée en sixième bu njëkk bi da ngay dem Thiès su fekkee ni demoo Thiès sa parent mën nañu yóbbu bu dee réussiroo école bu dee jigéen yi dañuy dem nekk bon Dakar à l'âge de 12 ans bu dee am na xale itam dañu leen yóbbu pour ñu nekk ay taalibe ci mbedd yi loolu yëpp dafa war a jeex léegi doomu mor naa dafa war a toog fii jàngee fii ba am bac minimum loolu bu def bu ko def bu ko defee bu dee sax yàlla def na ci am na ci jàmm mën nañu am dem ba ay BTS ak yooyu fii mën na am mais loolu pour le moment doomu mor naa dafa war a toog fii jàngee fii ci wetu yaayam ci wetu papam kon boog ñu jàpp ñu en tout cas ñu ñaan waajur yi yëpp ñu jàppale ci loolu loolu pour que waa xale yi bañ a nekk ci mbedd bi parents yi ñoo ci war a jàpp parce que ñoom ñoo jur seen doom ngir gën a méngale gis-gisam ak bu nguurug Sénégal ci xalaat bii di ubbi tey jàng tey maire dafay teel a séddale ci ubbi teg école bi ay blouse ak ay fourniture scolaire ngir woyofalal way jur yi bépp coono bu jëm ci jàngum xale

Maniko d'accord en neuf jours juróom ñent fan taxi le 26 novembre 2015 xalé yi dugg école ñu 3 troisième benn classe troisième seconde première et terminale voilà monsieur Marie ngi euh, monsieur le maire monsieur le maire daf ñuy jappalé su fekké ni ñu daf ñuy jappalé am ak ci matériel comme defarlu ay table banque voilà daf ñuy jàppale ci professeurs yi su fekkee ni xaalis bi doyul pour faire professeurs yi daf ñuy jàppale <clears throat> moo tax la sant. Monsieur le maire Yves Lamine 6 et son équipe méritent nos remerciements, nos félicitations et nos encouragements pour leur appui dans le domaine de l'éducation et de la formation. Sans nul doute, vous êtes du même avis que Nelson Mandela, selon qui, je le cite, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Fin de citation. si une formation nous am un centre de formation professionnelle bu ñëpp ràññee ndax ay résultats Nous ñu fay jàngale ay métiers yu jëm ci agriculture élevage restauration et couture. man nag sama discours ci tënk ngërmaane rek la di sant borom ndax yàlla ren def ñu sama ans carrière daanaka mbégte ak am chance depuis le début avec un million ci fonds de dotation def ko matière d'œuvre pour que qualité am formation yi ci couture ak euh, restauration maire yemul foofu

biñ demee ba ci examen yi yalla ci mbaxam daldi euh liñu jëf ju pour la première fois nous présenter des candidats au CAP agri élevage am ci 100 des candidats au CAP euh, couture am petit 100 tu ci BFM aussi pour une grande première inspecteur ñu jël 8 candidats suivre len en français en mathématiques ci 8 candidats yoy yalla may nañu ben d'office ak 4 oral muy donc 5 admis sur les 8 kon lool aussi c'est une initiative donc le lepp kon dañ ci sant borom bi mais di ci sant aussi monsieur le maire mi nga xamné jox na mi ndax dañu sasoon je me rappelle que bi ñuy joxé mbir mi inspecteur def ni li ñu leen di jox na ngeen ko réinvestir ba bu bes ba monsieur le maire aussi xamné ne bi muy joxé du xaalisam xaalis bi Morolan la kon nak war nañ ci am euh, doomu Mont war nañ ci gis seen bopp. ñuy waxaat ne aussi ci centre de formation ba léegi monsieur le maire yamul ci loolu léegi laa jóge école ba gas na fa benn forage à hauteur de 15 millions kon loolu aussi monsieur le maire dañ lay remercier waa ci ni nga taxawoo centre bi. loolu itam monsieur l' inspecteur maa ngi seede ne ah keroog ci suñu olympiade ndax dañoo créer ren wax les olympiades des métiers de la formation professionnelle et technique. Ils donnent récompenser récompenses les meilleurs élèves des différentes filières de formation Il y a 14 centres de formation à lycée technique. am une chance aussi doomu Morolan Marie Lucienne Emiliane 6 une médaille médaille d'argent pour la filière couture. mais il itam am na une distinction bi ñu jox mais mais ñun une formation professionnelle Nous avons les 14 maires les 15 maires qui couvrent les 15 centres monsieur le maire lañ ci ràññi ne jéego yu mi def ci formation professionnelle kenn defuko bu amna ben médaille buñ ko jagleel boobu aussi mang koy sédé maire faté wulit étudiant morolon yi nek ci université yi ci biir réew mi at mu nek dina leen jagleel ay bourse ci lu toll ci 40 millions ci suñuy copar bolé ci di leen fayal luyaas ci lu toll ci fukki millions ak djuroom ngir yombal seen nek ci université yu ci melni Thiès Dakar Saint-Louis ak Ziguinchor gis nañ tamit nim ñuy jàppale fi mu commencé manam moy utal ñu ay fo xamni logement yo xam ne mën nañ fa loger en plus mo dolli indil ñu ay lal yo xam du may sax ren la commencé ndax dawati jéeg ba légui am nañ ay lal 4e fee ci jigen ni lañ commencé équiper ñuy doga ak agsi ci góor yi mais encore une fois tamit ñu koy remercier bu baaxa a baax initiative bi tamit lu rafet la dina tax suñu condition de vie yi gën a ndax peut-être biñ avant lali di ñew niñ doon entassé woo wala niñ doon tëddee c'était dafa metti won dal effectivement voilà il y aura une amélioration des conditions de vie parce que pour, un étudiant, voilà, avant de, avant de te focaliser sur tes études, il faut d'abord avoir euh, voilà, un bon logement d'abord, voilà, pour que tu puisses être dans de bonnes conditions. Et je pense que ces lits, ces, dons à lits, je pense que voilà, vont beaucoup aider les étudiants à, à parfaire leurs leur performance dans les études. de 5 ans commune moo en charge pour cette location donc boo les Dakar cette location annuelle ça tourne autour de 10 millions donc la commune bi ak ay conseiller bi ak maire Nous ñokay en charge donc chaque année ci votre budget nous dañuy prévoir non pour mun ko fay à l'avance comme ça étudiants yi duñu am ay donc lolu yépp ci vision est euh, que euh, tax étudiants sont dans de bonnes conditions mais aussi euh, ci vision mu maire aussi mooy que ni euh, doomu Mont Rolland bu demee jàngi feneen warul sonn donc dafa war a nekk dans les meilleures conditions possibles pour que mu mun a réussir parce que ëllëg ñoom ñoo nar a dellu si Mont pour yóbbu commune bi ci kanam donc pour man loolu tamit am na solo trop voilà ñu koy def donc euh, defuñu ko seulement à Dakar mais aussi à Saint-Louis dañ leen di luyeel appartement aussi à Ziguinchor pareil à Bambey pareil. maire Yves Lamine Ciss dafa gëm ne ku def lu rëy am lu rëy lii moo at mu nekk muy amal ay journée de l'excellence, excellence ngir neexal xale yi ñu gën a ràññee ci seen résultat scolaire ak élèves yi nekk ci centre de formation bi. ku bëgg ñu sargal ko da ngay liggéey ku bëgg ñu sargal ko da ngay liggéey kon liggéey leen ndax ngeen mën a pour yor seen bopp. donc euh, bépp liggéey bo xamantene mom moom nga liggéey ba vraiment ñu sargal la war na ñaax yenen élèves looloo tax lii nii vraiment dañu dañuy gërëm waroon na mën a fekkee teewaayu élèves yi yëpp même ku jël ku mujjee ci classe sax dafa war a fekkee lii parce que dina tax vraiment prochainement nga mën a góorgóorlu war a mën a aussi vraiment lii parents yëpp war nañ ko mën a xam aussi parce que parent bu ñu sargal sa doom ak bu ñu sargalul sa doom yëpp war nga ko fekkee wala war na mën a gën a ñaax parents yi aussi ñuy gungee xale yi si wàllu njàng bi parce que ñun jàngalekat kat soxla nañu vraiment walu parents yi ci biir jàngu xale yi. démb bu doon tey de dinaa binduwaat école ndax lii mësu fee am livre yi nii élève bu ci jot classe ba ngay jëm déwén livre yooyu yépp lañ la jox fii loolu yépp monsieur le maire moo ko bind moo ko joxe. Euh, dégg naa ci réseaux sociaux yi sax am na le maire dafay def récupération politique dama ne man bu ma gisoon récupérer nii dama jël nii bëgg ñu may récupérer nii moo gën nga may récupérer ak discours ni voilà kon monsieur le maire

new telling code with den village musa iflamin si statulen ko bi ñu demee tango ah ñu dem fa poser suñuy doléance yeneen dëkk ñëw poser seen doléance waa tàngoor seen organisation bu rafet ñu ne léegi dañuy former benn comité boo xamante ni maire yi la ñu associé su ko defee ñuy toog réunion dëkk environ yi lu waay soxla su ko defee maire bi ñëw maire yi ñëw ñu discuté loolu suñu maire Moussa Yves Lamine Cissé dès le départ Dangote reconnaître woon ni sax Forum bokk na ci Dangote léegi ñu dem benn réunion salle yu gus keroog mu nga fay kaas gars yi ni bokk fa finalement muy xeex muy xeex ba bu ma juumul tàngoor fulu am na ci 434 hectares mbaa 344 hectares ci suuf morala ba fàtti fulu kon bu nek nekk alam da ko gërëmee coy kon maire li bo amé tay ni daw dimbali yalla yow ya la ndax jégué bi nga jégué sa askan moo tax nga xam askan bu nek ak dëgg bu nek lan lañu gëna gën gëna aajowoo sen projet moy seen prioritaire de santé

loo am gën koo yor moo nu ko yoral di remercier waa Dangote nga xam ni ñoo ñu génnee ci accouchement difficile lu xeen xamul ñu ñi nga xam ne ñoo la màccoon ni da ngay am gàcc da ngay toog ba guddi ñu yee la pour ñu yëpp la ci sareet yóbbu la morolaan xamuloon kon tey tey fii jigéenu am na lu bees loo xam ni d'abord moo ñu ko may grâce à monsieur le maire parce que su ko neexoon mu nekk du ñëw fii. d'ango vraiment c'est collaboration bi ni dit wax nañu di fi avons def wax nañu affaire Maka yep yep Ousmane wax tamit Ousmane maa nuyu nga chef de village nous ñaanal ko yalla yalla vraiment faire mais nous tamit askanu mobilisation Nous ci dëju Aliou na da ko yalla xare aljana dama contane keroog bima gisé ma ñew dëkk bi dëkk bi set wit lolu jeunesse non lay doxalé donc vive la jeunesse de Foulom vraiment ñu ngi leen di gërëm ñet di gërëm aussi manam vraiment wa comité d'organisation bi ñu ngi leen di gërëm bu baaxa baax ci li ngeen def ni li rafet na di nuyu également suñu mag suñu xarit monsieur le maire Yves euh, Alamine Ciss de Moralan nous suñu collègue au niveau du conseil régional je peux dire ndax wax dëgg l'agence régionale de développement Nous sommes un maire exemplaire et sommes tous les ni Fouloum, Fulum terto andang ak qui ci taxawaay wane ni monsieur le maire je vous lay féliciter vous encourage. lay encourager remercie la li nga sumb ci tund wi ak si say ci sa commune yàlla na ko yàlla mottali yal na la yàlla jàppale ndax yàlla dafa dogal nee naa amul lu gën a noble ak lu gën a euh, rafet liggéeyal sa askan mooy être au service de vos de votre de vos concitoyens mais nekk au service des communauté te vraiment nekk nga ci nekkin bu rafet ba tey ñoom it fu ñu amee occasion ñu ngi la koy wan ñu ngi manifesté, manifester monsieur le maire c'est pour nous l'occasion de vous féliciter de vous encourager pour que yoon bi nga nekk foofu la yal na yàlla mottali ak jàmm. bañ fii ñëw dañ doon def pose de première pierre bi daanaka ci genre tente bi lañ ñëw waxtaan ak yéen ne ñu ngi tàmbali liggéey bi tàmbali liggéey bi mooy ñu ngi def pose de première pierre te affaire bi tàmbalewul foofu.

mais teg na bi ci yoon ci ay parce que d'habitude ñun ak entrepreneur pour tàmbale bi avance te ñun comme duñu avance mais moom góorgóorlu ba bi ko ci ba délai ñu ko laaj respecté na ba ñu ko ñëw inaugurer poste de santé bi maa ngi la tournée des industries minières depuis ce matin di leen contact alors ñu jumale ko ak journée bi ñu yendu ñëw ci assister euh, l'ouverture du poste de santé de Floum di féliciter le maire parce que il est dynamique bii mooy première cérémonie vous ma j'ai fait juste un mois dans la zone c'est ma cérémonie ma première alors heureusement que ce soit avec Yves que c'est constaté que c'est un homme de développement et il nous pousse à travailler. On ne demande que ça. jàppaleen poste ak case de santé yi ay enveloppe yu am solo pour jënd ay garab rax ci dolli jënd ambulance ngir mën a transporter malade yi ñu war a yóbbu si bërëbu fajukaay yi gën a kawe. Euh, je m'en réjouis parce que ça va relever aussi le plateau technique des postes de santé et aussi euh, ça va euh, diminuer la mortalité. Quand vous voyez derrière nous, il y a les euh, matériels de PS, PSBB, bébé, euh, euh, comment dirais-je, chariot et aussi à des poubelles. Ça va améliorer aussi euh, le cadre euh, du travail. Je remercie encore le maire de Mont-Roland qui euh, fait des efforts pour nous équiper en matériel. Ça se voit depuis les lits, c'est adaptable d'accouchement. Aujourd'hui, euh, c'est des, chariots, euh, c'est des potences, c'est des, euh, PSBB et aussi des matériels de tensiomètre. ça prouve que il est en train de booster, c'est-à-dire améliorer le plateau technique des postes de santé. askan wi ci saafara seeni tawat ci liñ dul fay dara commune bi dinay amal ànd ci ak doomu dëkk bi ay journée de consultation médicale gratuite Donc vraiment, nous tenons à remercier euh, le CACSUP et tous les médecins, pharmaciens, en tout cas tous les membres du CACSUP qui chaque année viennent accompagner les populations de Morona. Si vous voyez que nous organisons ça parce que nous avons constaté que beaucoup de personnes n'ont pas des moyens pour aller au niveau des hôpitaux. Souvent, ils se contentent des, feuilles d'arbres, voilà, des racines. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais quand même, nous pensons qu'il est plus adéquat pour une personne qui est malade d'aller voir un médecin pour que le médecin puisse faire un diagnostic, puisse faire une consultation. C'est pourquoi donc nous avons organisé une journée de consultation gratuite, aussi bien pour les personnes que pour les animaux domestiques. En tout cas, nous sommes très satisfaits, surtout de la visite du sous-préfet, qui nous a quand même surpris. Voilà, donc pour cette visite. En tout cas, sous-préfet, nous vous souhaitons la bienvenue à Morlan. Euh, et nous sommes très contents que vous venez partager donc, euh, ces événements. Voilà, très importants pour nous, parce que quand même, la santé, pour nous, c'est capital dans la vie d'une personne. Parce que sans la santé, on peut pas, les gens ne peuvent pas travailler. Et si les gens ne travaillent pas, il n'y a pas de développement économique. Donc je pense que tout est lié. aujourd'hui, le CACSUP organise sa 19e caravane médicale qui entre dans le cadre du programme Santé pour tous que nous avons établi et qui a fait l'objet d'une thèse au niveau de la faculté de médecine. Et que, comme vous le savez, depuis 4 ans, le CACSUP a signé une convention avec la commune de Morlan, Et cette convention a permis d'abord d'aider des étudiants de la commune à obtenir des bourses. Et depuis lors, presque une cinquantaine de bourses ont été attribuées aux étudiants de cette collectivité. Mais aussi au-delà de ça, nous avons contribué, nous avons participé avec la commune dans le cadre de la journée d'excellence, qui est aujourd'hui une référence dans, la, dans, le département. Et enfin, ces caravanes médicales. Ces caravanes médicales permettent aux populations d'accéder aux soins. Les soins ne sont pas souvent accessibles aux populations, surtout en milieu rural. C'est pourquoi nous avons dépêché une équipe médicale composée de médecins, de dentistes, de vétérinaires et surtout d'un assistant social qui est avec nous pour aider les malades qu'on va référer à être pris en charge soit par l'État ou par d'autres structures. Nous tenons à remercier vivement M. le maire par sa vision. Parce qu'un maire qui intervient dans l'éducation, la santé et l'environnement, ça veut dire qu'il s'est inscrit dans un développement durable. C'est pourquoi notre organisation, le CACSUP, a lié cette convention et lance un appel à l'État pour qu'on puisse appuyer ces types d'acteurs.

day def ba def loo xam ne bii man quand même j'ai fait plus de être 30 ans de service mais lima ma gis mo koy def ak disponibilité bi mu am euh, accessibilité bi mu am 24 heures sur 24 heure bu éleveur yi amee problème moo la koy njëkk wax di la sollicité ba wax li qu'est-ce qu'on doit faire man loolu laa gis si moom moo tax lépp lu ma woo euh, maanaam ngant bi tax may bay ñëw rek ñaanu ma ko suñu borom tey nag dina am mbégte ak kontaan mbégte wax dëgg yàlla dafa yàgg ndax suñu wax dëgg yàlla suñu président mi kaan mooy sunu sunu sunu maire def no yëg def noo yëg lu nu jël lu nu ko wax mu taxaw ci li mu jëkk def jëppale ni ci ci ci jur gi jur gi xiif bëggul nit ku xiif bëggul gi jur gi wax dëgg yàlla ren ba ñu ko waxee man sama xarit kii euh, mbay combaan xam moom mu toppa ci man keroog ba ñu ko waxee jógee ñu jógee suñu kër ñu wax suñu jur gi dafa dafa xiif amuñu amuñu amuñu amuñu ci pexe mu ne noppi leen tegul semaine mu jëndal ma vingt tonnes repas vingt tonnes aliment mu jënda ko tel euh, euh, saako bu ne mu ngi jënd sept mille mu ne Sow jaay ko saako bu ne mille cinq cent mu defal nu ko ñaari yoon bu ci nekk dina dina jënda vingt tonnes mu mu ne naa naa ko jaayee cinq mille cinq cent soo seetee man ci li ma gis ma gis-gis bokk perte na ci euh, un million six cent vingt mille yoo xam ne da ko dindi seen di fali pour na jur gi avancé wax dëgg yàlla mën na ko fay waaye yàlla moom gis na ko yàlla dina ko fay waaw léegi euh, euh, euh, loolu passé léegi mu ne léegi tey dañuy def journée médicale barki démb la nu woo mu wax ma ko mu ne léegi jur gi dañ leen di faj amul jur gi yëpp amul nag amul fas amul xar amul mbaam amul béy yëpp même xaj sax dañ leen di faj ba amul lu ñu fajul waaw wax dëgg yàlla su maire yëpp meloon na moom defe naa ne Sénégal dina jàll kana ñun daal ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko lafal cat yàlla may ko dund yàlla may ko wér fi mu bëgg a yóbbu réew mi yàlla na ko yàlla jàppale mu yóbbu foofu. maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp mbégte la am ci bés bii kontaan naa trop ndax lii maire yàgg na ko di ko def du tey kon dañuy dolli gërëm di sant rek nañu dolli gërëm di sant di di ko ñaanal mu amu wér lu mu bëgg rek mu defal ñu ko ñun jigéen ñi it xam nga man maa fi nekk jigéen rek. bëgg ay jigen top ci man mhm. waaye amuma ko jigéen ñi rek nañu lu ñew mhm. duggu ci sam bi mhm. mu melni man wa ma ngi nek ma ngi sam sama kër wa amna naa amna am amna mbam kon jigen ni nañu melni man ñu ñew sam ni man comme ça ñepp dem kanam jigen ni dem kanam réew dem kanam sama ngir taxawu askan wi si jafe-jafe yi tukkee ci mbas mi di coronavirus équipe municipale bi jagleel na leen lu am solo ci dund rawatina ñi nga xam ne jotuñu woon ci ndi ndimbalu nguur gi rax si dolli ay sensibilisation yu ñu daan amal ci dëkk yëpp ngir bañ feebar bi gën faa law tabax na centre de formation jagleel ko way laago yi muy centre bu am solo ndax ñu ngi fay amal bép activité bu len di jàppale ngir sukkali sen kom jàmbaar léegi léegi joli joli jàmbaar. Penda may sama soob mbay mooy baayam. jigéen ñi it fàttewuñu la benn yoon ndax ñu ngi leen di jàppale ci walu financement ak formation ci walu ñew ak soppali meññeefu réew mi.

pour ma ma ma chargé ko fa xam nga loolu tamit léegi soulagement la ouf de soulagement la. neex na moom data avant muy bañ a ñëw nii sonnoon nañu demoon nañu ba xaddi ah, dem nañ ba ci biir moom mooy loolu dem nañ ba gis affaire bi nu ñooy enragé nañu bëgg nañ ci macha allah. suñu maam yi boo leen yeewoon tey ngan leen fulun am na courant duñ ko gëm parce que dañu daan wax ni du am ndax gëmewuñu ko bi ñuy installé courant paa yi ak maire yi koo leen ne tey daañu am courant sax duñ ko gëm tant que bésuñu par exemple sama benn maam bu nekk fii biñ demee même jour pour installer këram daf ñu ne fan lay teg sama baagam ba ma gis courant bi ma ne eh, jabaru doom ji taalal ko léegi mu fanaan yendu fanaan ba suba comme ça mu xam ne courant dëgg am na <laughs> kontaan naa moom macha allah wax dëgg yàlla nee naa sànq bu ma ñoo fi des sax ñu seetaan et également on a vu que le maire il a fait beaucoup d'efforts par rapport à euh, vraiment euh, courant parce que le euh, programme électrification rurale dafa dans le Sénégal le maire un minimum chaque semaine day à Azer wala mu woote fa wala lettre en tout cas il y a un ba qui ont am vraiment. franchement même les mesures d'accompagnement loo xamante dafa manqué rek le maire euh, taxaw na pour euh, taxaw taxaw na ci bu baax taxawaay bu rafet boo xamante pour mu pour vraiment ñëpp am courant. li olof Ndiaye di wax wedd gis bokku ci yéen commune Morolan ngeen dëkk li fi xew mën ngeen koo xam mën ngeen ko mën a seede 2012 y avait que cinq villages qui étaient dans cette commune loolu lu leer la ñëpp mën nañ ko mën nañ ko vérifier.

ak loo opposé opposé opposé aussi war ngaa mën a xamal sa bopp ne wax dëgg yàlla kii il est en train de faire mu ngi liggéey quoi mu ngi liggéey pour aw Mont dem kanam morlan dem kanam nag mooy premièrement li nit ñi soxla ci nga leen di fekk bu fekkee ne nit ñi soxla courant nga fekk leen ci jàppale leen ba seen courant tàkk bu nit ñi soxlaa école nga tabax leen seen école bu nit ñi soxlaa ndox nga indi leen seen ndox vraiment kon loolu buñ ko waxulee day niru soxor kon maire ak ñi ànd ak moom ag groupe am ak équipe am yëpp ñun ñoo ngi leen di encouragé mais di leen di leen ñaanal yàlla si yàlla gën leen a jàppale. lii ma wax nag xëy na man maa wax tey man ngeen tàllal micro ma wax ak yéen mais amul ku dëkk luxus koo xam ne di ngeen ko jox micro bi te mënul wax lii ma wax. parce que du du du lu kenn rek gis ñëpp ko gisandoo nitu ñëpp la yaatal na mu ngi bëgg na pour ñu dem te it ni nañ ko jàppale incha allah. lenn rek lañ lay ñaan te waxoon naa la ko téléphone keroog ñun dañu bëgg avant élection ñu samp poto yi lamp mbedd yi tàkk bu boobaa ñu assuré la cent pour cent loolu daal lañ lay ñaan tegu ñu la leneen fii ak élection courant dong la ñu bëgg buñ ko amee ñu assuré la cent pour cent bàyyiwul it ginnaaw wàllu ndox ndax yaatal na réseau SONES bi si dëkk yi di Sambay Karang Paxum Kuy Kër Daawda Kolobaan ak mbedd yi nekk si Fulum ngir indi saafara si jafe-jafe ndox maire gunge Asufor bu Palo jëndal leen groupe électrogène ak pompe ngir ndox mën a baawaan ca gox ba. ndox mooy yor moo moo doomu aadama ndox lépp bu lépp lépp mu manqué bu amoon te ndox manqué doomu aadama dundam du neex du waaye ndox mooy premier daanaka mooy premier loo xam ne doomu aadama bu ko amee rek ak nu mu mënti mel rek dundam dina neex waaye bu ko ñàkkee rek lépp lépp lépp am dundam du neex damaa kontaan ba fi mu nekk nii xaw ma sax ndax damaa sonn ci root bi benn jour bi rek mën naa root ay ñaan fukki paan dem na ba ren jii damaa sax am fatiguement waaw robine bi nag wax dëgg si yàlla monsieur le maire leen ma ko mënu ma ko fay mënu ko fay nee naa monsieur le maire mooy doyal ne waa mairie bi abal naa leen waaw waaye du mbineef mooy voté ba ñu ne daaleel nañu monsieur le maire mukk du am te loolu laa mës di wax xëj na nag feeñu ma ci biir man damay dem sànni sama carte toog sama kër noppi mais man lima xam xam naa ko ndax gor bu nekkee gor gor rek la waaw te nit ku nii nag waa Marola mënuñu ko am ba pare di ko sargane waaw nit bu la defalee danga koy wax te yàllaa tax man taal mu ottee ndam ndam ye gibidi moom àdduna yëpp moom esoor esoor parce que seeno boor ilifam sa rek ndey sanam ñëpp groupe na ayu na poste so na betnu so nda ndama mi sawor sawro ni ya mi do ta ko sande san a si a saki ngele wiso me ola mi reng bet saki ngele wiso mon yew mon buumi jama lecce kelona blade kil sabay na mi ne honi to bo bo bo ne mulo nyak mulo mi bo bo ra may bo le nyak ndax nyak mulo fay hale fami rande sanam fo bem siwu ye ye ro il ndangam fay sope sopo ni nda kula hay handa il faut fa fay fay fay ñak jom yi ba da musique soni ay wala mi yibe wota rek ah ah ndam dame kenjo somi andu fi be ndam dame kencho yi mon wonote be min na sento fu aduna furo yena dang fu aduna furo cho fela na yena fu fili ginara ko dam dore fay ko ondo garana tok fu bara de akir fu monto bigen bigen ba gan hmm dindama di mariam fa dago yenn xam nga maget du salaire salernya, dañuy ne salaire ni buy boy fecc ne ne salaire ni tuuti manen la ma tuuti ma salaire ni suma yëkëté sama tank rek moy salaire ni ndax ndam bi mu teyu mako du mako tay gërem na yalla gërem ak ñi ñi mu andal ñepp ñepp ñi ko jappalé normal la ay bama gisé rom ne sax néna li ndox la <laughs> oy da bi mbok mu dama sonn ci ndox demb jënd na ñaari saret billahi ndax bop bi mënatul yenu ah li da jamm rek ak sante yalla jamm rek ak sante yalla di gërëm wut ñiko fi indi ak ñi ñu jappalé ba ndox mi taxaw ñu ngi leen gërëm di leen sante te di leen ñaanal yalla lu ñu bëgg rek yal na leen ko yalla may. li nak mom kenn mënu leen fay rawatina Yves Yves de man dama ko yok di ñaanal rek. ci kaw ca kanam ndax Yves soxorul iñaanul yëg na nit bëgg na waa Morolan Yves lépp lu mu am lu baax rek mu indi ko fi biir Morolan suñu mairie bi de Yves de fii lay toog a toog toog mooy doyal boppam rek mu ne dama fiy jóge bu dee man Marie Faye de bokkuma ñi ñi koy génnee fii ah sant nañu yàlla bu baax a baax tooyal ma tooyal ma da koo jar jërëjëf monsieur le maire yàlla na ko yàlla jàppale yalla na ko yàlla jàppale ku mu bëgg ci karam lu mu bëgg ci adunum yalla na ko yàlla jàppale lii nii su ma bëggoon sax Macky Sall sax nako jot parce que monsieur le maire mom il est brave jere def legui kontan nañ am amatul hey euh, fajar wala goudi di di rot di taaj li de neexati na xanaa tës la li neex na de lu ko gën a neex amul xanaa sukkar ak lem lii de moo gën a neex lem sax lii moo gën a neex lem de li ngeen sumb ni yàlla si wàllu mbay mi morolon bokk na si gox yi ñu gën a ràññee ci Sénégal ndax projet agricole yu am solo yi fa sampu si njëlbeenu projet yooyu maire dafa dajale borom tool yi ak ñi yor projet yi ngir ñu mën a déggoo ci ay kàddu mu saafara lu bari ci xëyu ndaw ñi ak jigéen ñi tax ba doomu morolon yu bari ñibbisi ci seen gox ngir di fa daan seen doole. Je peux dire que aucun propriété propriétaire plutôt, ne peut dire qu'on l'a imposé à donner son champ. Il y a eu des démarches qui ont été effectuées avec le consentement des propriétaires terrains. Et cela nous a, euh, nous a amené à pouvoir travailler avec eux ici. Chaque propriétaire a droit à au moins un emploi. Imaginez 150 personnes, nous avons 100 000 francs minimum. damay wax cent mil parce que ñi ay salaire quatre vingt mille ñi salaire deux cent mille ñi salaire cent mille boo xoolee cent cinquante personnes sur cent mille francs boo ko xoolee ñaata la loolu xaalis bëri la quatre vingt mille francs boo ko xoolee cent cinquante ça fait douze millions. cent cinquante personnes. Loxos moom assuré na cent cinquante personnes dugg na fi man Loxos njaay bopp dem na lu toll noonu fulum dem na toll parce que village yi tolloo wuñu parce que tool yi nombre tool yi village Loxos moo ci ëpp. moo ëpp quoi a loos moo ëpp parce que loos am na droit dugal cent cinquante personnes jotagul sax cent soixante dix cent la am mais cent cinquante dugg na ci année bi passé nii kon ñooñu ay masse bu duggee loos ay douze millions par mois kon loolu nga war a xam ne loolu avantage dëkk bi la ci yu mel noonu moo tax ñu gis ko man mii damay xëy taxaw ci bitig bi régler samay bosin yëpp taxaw keneen noonu keneen noonu doo boon duggee ci dëkk bi ñaa ngi tabax nit avons ngi def lu ne gis ci seen bopp jigéen ñi koo ci wax ni nañ projet bi ñaata Josephine mi section récolte des day personnes par jour fait service technique agriculture irrigation baa fi fait. administration ñooñu ñëpp ñoo xam c'est doomu des ñoo ci nekk ak ñoo ne fi mais mën nañ leen parce que projet projet Sénégal nit dañ yu mel projet donc ferme bi ñoo ngi débuté suñu activité octobre 2015 of dañoo faral di def contre saison froide haricot vert boo xam ne à l'export lañ koy jaayee ak partenaire italien donc première année bi sur cinq hectares amoon nañu quatre-vingt-sept tonnes deuxième année bi ça veut dire campagne 2015 2016 moo nekkoon quatre-vingt-sept tonnes yi 2016 2017 ñu amoon cent quinze tonnes 2017 2018 moo nekkoon cent trente-deux tonnes. impact bi mu am au niveau social maanaam gis ngeen récolteuses yi jigéen yi di witt tey rek nekk nañu mat 300 femmes ñoo ngi leen di fay nag par siwo siwo boo witt siwo 5 kilos boo witt rek 200 francs la so li lay fay sa dépend ci nombre de siwo yi donc euh, ci société bi ci biir dëkk bi am na solo parce que boo xoolee li mu tuuti tuuti ku nekk war na cee mën a am benn 2500 ci benn benn fan. loolu yaakaar naa lu baax la ci dëkk bi aussi si wàllu tàggat yaram maire bii di gën a taxawu ASC Morolon si ay équipement ak subvention ngir yombal seen i jongante bàyyiwul nit ginnaaw équipe nawetaan yi ak école de football yi di leen jox ay subvention ak équipement yu am solo. di gërëm aussi M. le maire Yves Lamine 6, notre parrain du jour, il nous a des trophées, il nous a des euh, matériels, des jeux de maillot. Et qui vous participez si Nawetan avec Daniel Jeff Jeu de Moi. Auparavant, si Nawetan, avant de euh, subir Nawetan, j'ai une équipe de 100 000 francs. Au euh, final, nous sommes très contents de l'exemple. ci doomi Morolong yi yëngu si wàllu athlétisme lamb basketball ak arts martiaux ndax ñëpp mi ngi leen di taxawu ci ni mu ko mënee. boo xoolee ni ñuy waajalee seeni combat dafa metti moo tax ba ñu mbébét lool noonu ñu toog xool am bureau woo mbër yi ku nekk suuf ci loxoom ñu xool nan la ñuy def ba mën leen jàppale à chaque fois bu ñu amee combat loolu moo taxoon ñu ànd ceeg monsieur le maire Yves Lamine Ciss bu ñuy jàppale ci suñuy mbébét. képp koo xamante ni mës na am combat moom jàpp na ci parce que à chaque fois bu ñu xewlee dañ koy daal di woo te mësuñoo gàntu. waaw journée yi euh, am nañu journée yu ñu def à Tivaoune au niveau de Tivaoune yooyu waa Tivaoune ñoo ñu wooñu nañu joué ay journée aussi yu ñu def fii Morolan yooyu itam moom dañuy dañ ci jàppale aussi waaw ci subvention yi nga xam ne moom la ñu jox ci la ñuy jël. Ah, def ci journée yooyu waaw des fois aussi bu boole ñoo ñoo xam ne itam ñoom dañ ñuy indaale ay coupe boole leneen ñu ñoo xam ne ñuy pour participation mandat bu bees bi muy sàkku maire Yves Lamine Ciss jubluwu ci lu dul wéyal liggéeyam ful ay yoon yoon li mu réalisé ba morolam na tegu ba faaw si yoonu yokkute bu sax dàkk. déwén dina am keneen ku ñëw def maire xam na ne politiquement man je suis pas politicien man du ma politicien mais nag gis nga nit maanaam boo gisee nen ñi neneen ñi nit day honnête man du ma politique politique mooy dëkk bi mooy sama kër mooy sama parti mais au delà bi man dama def sax ay manifestation politique mais maire li nga dugal yàlla yaa ko xam yàlla na ko yàlla may yàlla na yàlla may wér bi nga yeggale sa mandat bi ak mandat bi naa wax ne fii ni ay monsieur le maire bii ku ne sañ naa wax ne ma waaye kenn sañul wax ne lekkuma ku ne am na droit ne suuruma mais kan amul droit ne lekkuma nit ki nag mënul mënul mëta fu ne waaye nag mu ngi def xëy na dafa amul ñu koy jàppale mais mu ngi def te mu ngi wut ay partenaires yoo xam ne tamit limu mu bëgg ci Morlan ñu defal ko ko am ñu ko jàppale li mu bëgg mu def ko lépp ci lu baax mais nag ndànk-ndànk rek

ñun ñëpp d'accord nañu ni def ko lu baax la te mu ngi waar wi tàyyiwul delluwul ginnaaw waar wi delluwul ginnaaw bu nga jëm kanam ñun waa Morola xam nañu ko ñu koy sant di ko gërëm amul gërëm ku amul fu muy yem parce que lii yëpp moo ko sookee nit bu sookee lu baax nekk fii def fi ñaari mandat def lu baax rek kon kooku ñu koy ñaanal yàlla yàlla yokk sutura yokk wéram yokk man-manam ñun xam nañ ni lu ma am forom du ko fàtte lu ma am solaal ni forom ñun xam nañu loolu mooy bëgg na jàmm fonk na njàngit kuy jàngit loolu ah, xaalisam ak alalam du ko fekkee loolu moom développement moom moom la jàng moom lay def ci réew mi te bu mu fi toogee ba léegi xam nañ ni développé na gox bi

président de Wilfried Diop secrétaire général AS Morolan euh, damay tàmbale sama discours aussi di remercier monsieur le maire euh, di remercier maire Fall mët na maire M